abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ahlan bikum àjjuma bii di ñëw ci la njiit réew mi Macky Sall di wax kan mooy candidat Benno Bokk Yaakaar allah laas yéene kaay ñu ko xamal vox populi na ko faalay gàgganti affaire bi du yegg àjjuma de suba wala ginnaaw suba ci la njiiti réew mi di tànn kan mooy nekk mbëru Benno Bokk Yaakaar ci wote njiitum réew yi di ñëw ah, yow fa ngay xool parti ya nga xam ne ñoo jàppale njiiti réew Macky Sall te nekk ca Benno Bokk Yaakaar ñoom AFP ak yu président Macky Sall fañ koo wax na ko ñun jox nañ la suñ kàddu jox nañ la suñ bët xoolal koo ñu tànnal rek doy nañu waaye nag fañ lay wax na la suñ sañoon ki ñuy tànnal yow njiit mi ngir mu nekk suñ bër na nekk koo xamante ne fa ñuy respecté fay am ak ubbeeku ba pare liggéeyal Sénégal l'observateur na leen voilà faay sàcc wax leen ki njiit réew Macky Sall nar a tànn faa leen di wax nu mu war a mel yaw seetal koo xamante ne la ndaw ñu fañ koy bëgg réseaux sociaux yi bi xarxaram bu rafet la ci xam ponkal lay nekkit nag te xam ay jikkoy rafet la enquête yéen kaay mel ni ko yow daal léegi waxagoo ñu kan lay tànn fa ngay junj te li nga junj leerut waaye man li ma leer mooy ne ñàkkante mënta ñàkk ca benn bokk yaakaar ginnaaw bu ñu tànnee seen mbër ma wala fajir yéen kaay ne benn bokk yaakaar parti ya koy jàppale fa mel ni daal fa ñoo rocc seen ruuxu gi ah ñoom njiit leen yaakaaroon te nekkatut candidat moo tax AFP ak PS ak ñuy mel boo moytul fa ñuy fori new ña nar a fori new dëgg nag ñooy waa APR yi ah, yaaw fa ngay xool fi mu toll ni ñoom ñëpp fañ na tekk ne mig noppi di xaar kan la njiit mi di tànn ca seen biir ngir mu nekk seen candidat keroog bu tànnee nag ca lay jàmm di jeex as si di quotidien na fa ngay seet Farba Ngom Arouna Dia seen xeex ba ñàkkante ba ca Fuuta ba léegi ña nga ca direct news ne man faa xamut lan moo tax ba léegi ba ngoom ak Abdoulatif Coulibaly fañ na tekk tekkaaral waxuñ ci njiitiram Macky Sall li mu wax ne du bokk ci wote yi kenn déggul ñu wax ci loolu nag fa tey xel le regard yéene kaay ne man de faa ragal ne njiitiram Macky Sall kim nara tànn ngir mu ne candidat benn bokk yaakaar fa nar a bett ñu bëri koo xamante ne kenn du ko ko foogee ah xam ngeen njiitiram Macky Sall moom fa aay ci bettaate ñuy tudd ay Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ak ñoom Aly Ngouille Ndiaye ak wax boo demee kenn la ci source ay yéen a kaay ne en moom njiit réew mi fi mu toll nii pale ba ma ngay dalal ay kàngam rek di waxtaan ak <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne Ousmane Sonko fukki fan ak juróom ci weeru sulier wii la 15 sulier ci la ko waa Pastef yi fas yéene samp mu nekk seen mbër ci ab ponkalu maamu mitin le quotidien yéen a kaay ñu ko xamal Vox Populi dëggal ko na mitin bu mag ci lañ ko fas yéene amal ndax fa ñoo jàpp ne candidature Ousmane Sonko ngir mu bokk ci wote yi demande sociale la askanu Sénégal ñoo ko soxla waa Modap yi ñoo wax li ni mel wax nag mooy El Malick Ndiaye bu Pastef mooy gis ngeen le 15 juillet boobu Ousmane Sonko fay ñëw ca ndaje ma fa koy a seen waa ji invalidé ko maanaam tere koo bokk yéen kaay bi ne donte daan nañ ko daan nag terewul ba léegi mooy maire bu Ziguinchor <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne wote njiitum réew 2024 ak wote député yi faa ragal ñu boole ko bu def ko benn de point actu ne ba tey faa ragal assemblée nationale bi fañ koy tas li yéen a kaay moom fa xamal ne dëkk teer yi am nañ courant dëkk kaw gi am nañ courant la xam ca kaas naag mooy seen canalisation ya xamal tàngoor wu métti nga xam fi mu toll nii ndakaaru njaay météo na ko du Dakar de Sénégal yëpp la te boo mooy tuut nag maire yu màgget kotootoot yi ak xale yu ndaw yi tàngoor sax mën na leen a rey te fan yi di ñëw tàngoor yi fa nar a gën a yokk nag info yéene kaay moom fa xëy di ñu heggee ak a jàngat kàddu général Moussa faal gis-gis bi mu xam ci askan wi ak wàllu kaaraange doxale nii ak yeneen yi ni mel les si ko yéene kaay moom di ñu xamal xab xale xam juróomi at fa lab ci gi ci kanam baayam yëf yaa nga amee ca kusum turbine yéene kaay moom it di ñu xamal ne ñetti téeméeru sénégalais ay ndaw fa ñoo dugg ci gaal ngir dem bitim réew lépp ngir daw moytu coono bi nekk ci réew mi léegi nag ñoom ñooñu fa ñoo réer ca biir géej ga léeg si ko yéen a kaay dëggal ko ne biñ déparé ba léegi kenn gisatul leen fa ñoo réer mër ñàkk dal gi ci réew meeg coono beeg ñàkk moo tax ñu ne ñu soobu ci géej gi ngir dem bitim réew résultat baccalauréat yi li génn gum dalul xel de donte la soleil yéen a kaay fa caa yokk di ñu xamal ne élève bu jigéen bi ñuy wax Yacine Fall moom fa xam baccalauréat d'office mention très bien ba pare nag xam nga ñaat la am moyenne 17 virgule 96 aay loolu du ne faa lay xale bu jigéen bi amul téléphone portable réseaux sociaux yi xamul ci dara ma ngay wax nag li tax mu bëgg a nekk médecin ëllëg lycée bu ndànd ca wetu Kébémer fa la doon jàngee waa ma ne faa lay ñaanal yàlla na la cat séexlu xak làmmeñ bët bu xaay ba ëllëg mën ngaa nekk présidente bu Sénégal moyenne 17 virgule 86 ci bac <laughs> wute nga ak ñama xam yow élève buy def bac yaa dàq sinap statut faa ko jëlale whatsapp nekk ci réseaux sociaux yi taxawaaloo jàngoo dara foo jëlee bac abonné leen si suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk ay xibaar bitim réew